nekk en pleine concentration ci épreuve yu njëkk li ni mel nag di wone bëgg nañu am seen diplôme bu njëkk Fatima Touré nekk candidat am na confiance lool. waaw am naa confiance naa am. ci centre d'examen Pikine 7A lépp yomb na. li mu bi yokku na lool buñ sukkandikoo ci inspection d'éducation et de formation. juróomi junni ak juróom ñaar téeméer ak benn élève ñoo war a def seen examen te si juróom junni ak euh, juróom ñaar téeméer ak benn yooyu ñett ñetti junni yi ak euh, ñaar téeméer ak fanweer ak ñaari ay jigéen lañu. ana lan moo bees ren ji ci examen bi. fon ay difficulté mais leen dañ leen permettre ñoom directeurs yi à travers benn plateforme Educasoft ñu naan ko Anadol. donc ñu mën a inscrire élèves yi même élèves yi nga xamante ne sax amuñu këyitu judd permettre nañ leen ñu def seen examen. fii ci Pikine 886 candidats yu amul kayit juddu ñoom tamit ñu ngi def examen cf e ak entrée en sixième seen situation nag danañ ko réguler ci lu yàggul jaare ko ci audience foraine yi suñu sukkandikoo ci IEF bu Pikine.